وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى أمبي السام وفي الفن سيرين مودو مبي أيد الله ونصره bokk ëri ci rajo xasid online delu si nañu weneen yoon ci seen émission bi ñu tudde min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal waaye xam ngeen ni heure bi dafa changé fii léegi trois heures la ci daaraam ji ñu tudde yaw uloomu diin studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu taala anhu mu mel ni dimanche ba lay weesu ñu ngi doon waxtaan ci coronavirus li arab yi tuddee virus corona virus corona di benn épidémie bu dajale jamono kap bayiwul men réew bayiwul fenn mu dogalab suñu borom rabbi sit wa jàlla jalaaluhu loolu moo tax waxtaan wu ñu tàmbali woon muy mbirum virus corona wala coronavirus coronavirus di benn épidémie ñu ni kon nañ continuer mawdu boobu rek incha allahu rabbi xam naa waxtaanu tey wi xëy na lu gàtt lay doon ndax dañoo bëgg a waxtaan ci suñ borom dogalami rabisit situwa jàll ak i nattoom yi muy teg jaam yi jamono bu ko soobee waxtu bu ko neexee mu bind moom moom te lu ko soob def rabisit situwa jàll virus corona danañu jàngal li tudde al imaanu bil xadri xayrihi wa sarrihi gëm dogalub suñ borom rabis wa jàlla ak i nattoom bu neex ba bu naqari ba ndax ñaar yëpp la yàlla di boole di indi ci jamono borom nee na ci alquran tilkal ayaamu nu daawilu a bayna ñun yàlla bi bindee addina bi dañ koo bind mu melni ñaari wujju yu sey ko aye tay bu ëllëgé sa morom aye mu jamm aye bani ni bu ëllëgé ay ak musiba ak balaa ni ko baal ma aye bu teraanga aye ba melni ni dootu jeex bu ëllëgé ñak ni ko baal ma aye tilkal tilkal ayaamu nu daawila a bayna nas ñun yalla no bindé non adina bu wër aye yaram wër dara jutu ko waaye léegi tey wéré di ñëw ni ko baal ma aye bu man ayé leg leegi ba yàgg mën di ñëw ni ko figalal ma aye mu melni ñaari wujju tilkal ayamu tilkal ayamu nu dawilu a bayna nas alquran la bu katan ayé bu ëllëgé niiw kat ñëw ni ko tay ma aye lolu moy al iman bil khadri khayrihi wa sarrihi incha rabbi ku déglu waxtaan wi da nga ci mën a jële muñ dogalub yàlla ni mu amee njariñ borom rab istuwa jàll wax na ci téeram bu tedd bu màgg bi nee na awalaa yaraw na annahum yuftanoona fi kulli aamin maratan aw maratayni suma laa yatuubuuna wala um yadakkaruun suuratu tawba <clears throat> borom nee na rab istuwa jàll ah yéen doomu aadama du ngeen am réflexion du ngeen xalaat at mu nekk danaa leen yónnee benn natt wala ñaari at yu ne maximum at mu ne ma yónnee leen nattu wala ñaari at yu ne ma yónnee leen am nattu mu ne waaye xam ngeen lu ma ci jublu du soxor de du añaan de déedéet damaa bëggoon rek ngeen wàññi ko dellu si ni ma yàlla yow dong yaay yàlla yaanu bind yaanu moom loolu rek laa ci jublu dama bëggoon rek ngeen jëlee ci réflexion ci nattu yi ma leen di teg bërki ki boo njaay la seet taax mi gën a rëy ci Amérique mu xëy ni ko mabax waaye amuñu benn réflexion bërki déem boo njaay la sarle ak du xewoon ñu rey ca ñu bari waaye amuñu ci benn réflexion suma laaya tuuboona wala um yadakkaruun suratu tawba suñ borom ni taxul ngeen am réflexion taxul ngeen dellu si ni ma yàlla yow dong yaay yàlla <coughs> rek démboo njaay la batala joolaa waaye ba tey rek su ma laaya tuubuuna wala um yadakkaroon suuratu tawba suñ borom ni ba léegi taxagul ngeen dellu si ni ma yàlla yaay yàlla yow dong yaa fi ne amuleen benn réflexion batala joola barki démboo njaay suñ borom ni man maay doxale noonu at mu ne ma sànni leen benn nattu wala ñaar ngir bëgg ngeen am réflexion déllu si ci man xam ni man rek ñi nga xam non noonu la état yi addina bépp def ànd ni groupe ci kanamu yàlla ni ñun day mënatuñ dara yàlla fi sus yàlla lool rek la bëggoon yàlla daa bëggoon ñu xam ni ñoom duñu tus mënuñu tus duñu dara yàlla rek ay yàlla aw na xam ngeen ni ba ko yàlla mayee kattan mu mën a toog quarante ans tis sax ko sax dara jotu ko mu mana tok ñaari weer du dem wonak muni a ah, legi day anna rabbukum legi kon may seen borom yalla ni ko bak nga ñak bak nga njaag nag borom rabbi suba jalla jalaluhu neena ci tirem ba wala nablawannakum ata na'lamal mujahidin minkum wa shabirin suratu muhammad alayhi salatu wasalam borom neena man yalla duma deñ muk muk muk di leen nattu mu ne xam ngeen lu ma ci jublu dama bëgg a ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi gën a mën a résister bil iman résister bil qadr bil qadri sarrihi xayrihi wa sharrihi mu ne man dama bëgg a ñi nga xam ne ñoo gën a mën a résister mën a gën a muñ dogalub yàlla moo tax mu ni minkum wa sabirin wala nablawannakum ataa na'lamal mujaahidiina minkum wa saabiriin damaa bëgg a xam ci yéen jullit ñi yéen doom aadama yi kan moo ci gën a mën a résisté ngir nangu dogalub yàlla kan moo ci gën a man a muñ ngir rasuwaar dogalub yàlla rabbi sisti wa jàll damaa bëgg a xam gaa ñi nga xam ni nangu nañ ni man yàlla rek ma yàlla nangu nañ ni lu am mana ba loola dana leen yóbbe ñu nekk ay mujaahiduun dana leen yóbbe ñu nekk ñi tudde asabirun muy loolu man yàlla maa koy faral di def mu mel ni xayrus corona bii wala boog coronavirus bii ñun ñëpp mën nañ cee xamee ni rabbi situ jàlla jalaaluhu am na ay soldaaram yoo xam ni bu nu ko yónnee ñun ñëpp daañu ni nuut yaru fi kanamam barki dem boo njaay lañ fi jéng ab donga ngir ne ko kaay jàng téereb yàlla bi nu bindu te moom nu waa addina bépp daje nilu lu tax wërta am deli la kirim la ah léegi nag jamono bi ñu toll mboolem njiiti réew yi kenn ku nekk léegi waxuma la jéng benn donga waaye yow sa waa réew ñëpp nga jéng ci benn place mooy li ngeen di tuddee confirmer xuma moy li ngeen ni tudde confirmant yow benn dong buñ ngiri ngir jangal ko téereb yalla bi rabbi so jalla mo la taxoon di yuuxu léegi ma ngi laaj ana droit de l'homiste droit de l'homiste yi nga xamni benn dong dong lañ jengon ni ko kaay jàng wax yalla ji nga xamni bind te mom nu te moy borom yi te jang bi dana tax duñu yónnee soldaram yi ñuy alak addina bépp mbamb ko léegi nag benn président rek génn décrété ni yéen sénégalais yépp jéng naa leen seen biir kër yi huit heures bu xësee jot mayatuma ku génn sa kër ñu lànkal yàlla nangul ko ñu lànkal yàlla jéng ab donga ngir mu mokkal alxuraan waaye nangul ko moom nag mu jéng ñu huit de soir ba six de matin te sañu ñoo bañ loolu ci nattu yàlla yi la bokk di wala nab la wannukum ci la bokk ci soldaar yàlla yi la bokk de li indi li, ci soldari yalla yi la bokk rabbi situ jall sun borom ni waye li lepp taxul ngeen am ben reflection taxul ngeen def tadabur taxul ngeen def fikru, taxul ngeen def fikru, ngeen di tañañal rek sax lettu yi dégguma sax lettu yi dégguma barki dem bo njaay lañu yalla yónnee soldar baña taw ba ñun ñepp ñu dajé ci ak jumaa yi di ñaan ñun ñëpp la taxoon ñu daje ci jàkk ñaan ba yàlla tawee ñu sànni ko ci suñ gannaaw fàtte ko mooy góor jigéen yeeg fokkat yeek ila axirihi delluwaat ca lañ nekkoon ci seen balaxal madda yàlla ni baax na danaa yónni soldaar bu tëj jàkka yi danaa yónni soldaar boo xam ne nii dana tax ngeen tëj seen jàkka yépp ak seen jumaa yépp soldaar bi mooy kan mooy virus korona virus corona jële nañ ci abi saxiid ak abi orayra radiallahu taala anhuma ñoom ñaar ñëpp ñu ni yonent bi sallallahu day mas wax ni maa yusibil muslima min nasabin wala wasabin ولا حم ولا حسن ولا حسن ولا غم أتى سوكة يساكها إلى كفر الله بها من قتاياه رضي الله تعالى عنهما عليه الصلاة والسلام مي أبي سعيد مي أبي أريرة نعم نعم نعم نعم نعم مصطفى عليه السلام نعم ما يسيب المسلم من نسب أو من نسب ولا وصب ولا حم ولا حصن ولا حسن ولا غم أتى سوكة يساكها إلى كفر الله بها من قتاياه سن برم دي لدي موك دي نتو أب جلت بنغم مات تكو بن متكو جاهل ولا چونا ولا فيبر ولا إتي أدني منتفج ولا نجاقل ولا لرجو كبتي كوام ولا جاهل مني ànd ak loolu lépp day loolu ko yàlla teg moom jullit ba bu ko nangoo te gëm ni yàlla ko indi publicité ba jàll nee loolu nga xam ni moom moo koy mettital mu di ko yëg ci xolam loolu du dañ mukk di metti ci xolam mu di ko yëg ba yëgatu ko ci xolam nee na saa demee ba noppee yëg mettitu natt boobu ci xolam rek yàlla faxas na bàkkaaram bam set wecc amatul benn bàkkaar mu ni natt yooyu ko yàlla di tekkat jublu ci dara lu rek ilaa kafarallahu bi a min xataayaahu baal ko lépp lu defoon ci njuumte kon fayrus korona nattu la suñu borom def cee nam jéggal ñu suñuy bàkkaar wala yëkkati suñuy dara ji yowmal xiyaam riñ musaaka rahimahullah nee na nattoo di kerkeraani awliyaa ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaa ngir yàlla kat xarit balay musi baal ngir dara jaal ko mbaate muy ku baal bu dee ab julit nattu la ci moom waaye bu dee yéefar yi mbugal la ci ñoom mbugal la ci ñoom ndax mbugal dana tax a dellu gannaaw mbugal dana tax dellu gannaaw ci bàyyi yàlla yàllalu ca yéefare kon mbugal la waaye ci julit ñi nattu la jullit ñi bu ñu gëmee ni loolu nattu la ñu muñ ko ñaan yàlla mu teggil leen ko rab istuwa jàll la cay topp lu muy doon mooy xéewal xéewal rek moo cay topp nit ñi def sallallahu alayhi wa sallam nee na ci hadis boo xam ne abi urayra moo solo radiyallahu taala mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man yuridullahu bihi xayran yusibu minhu yàlla saa bu nammee ci ab jaam teraanga mu nammee ci ab jaam aw yiw da koy nattu yàlla saa bu nammee ab jaam teraanga mbaa mu natt ci moom aw yiw da koy nattu kon daañu gis ni lii am nattu la ndax ñi daan liggéey ñëpp xëy nañ toog seeni kër sañatuñu génn aéroport yëpp ñi selaw benn avion naawatu port yi ni selaw benn bato kosteetul usines yi ni selaw benn travail xëyatul benn travailleur xëyatul ku mu doon kenn ki rek de rabbi sitwa jàll te benn ci ay soldaaram rek la ñu yónnee kat benn ci ay soldaaram rek la ñu yónnee daal di àddina addina bépp wane ni addina maa bindoon maako moom maa fi ne da ngeen may jox sama wàllam mbaam ma xëpp ci cere ji suuf waaye waaye nañ ko jox wàllam nañ ko jox wàllam moom lum soxla ci ñun ñu ne ko yàlla yow rek yaay yàlla moom lii dong la soxla yàlla yow rek yaay yàlla xoolal gis nga boo demee euh, Saudia journaliste yi nekk ci télévision yeeg yooyu di joxe ay journal wala ñuy def ay waxtaan. bépp journaliste bu ca génn ca télé ba wala benn boroom xam-xam buy def fatwa ci télé yi te bi ngay doog a tàmbali néewoo ki nga xam ne mooy sultaan bi yàlla na ko yàlla sàmm te dëgëral ko yow boo moytu police ngay fanaani képp koo xam ne yaa ngi wax rek te te bi nga daataan tàmbali nangu woon ni maanaam bu doon ci réew mi booy doog tàmbali ci wax ju mu war a doon mu neex la mu naqari la faaw nga ni président de la république yalla nako ko fi yalla yagal te wëral ko mbaa boo moytul dem ci kasso bi ah yalla mi nu bind mom nu nak luñ wax seppi ko ca luñ wax rek seppi ca yalla lu def seppi ca yalla yalla tok diñu sétane rek ndem yow sultan bi burbi, bi yow malik bi nga xamne yow rek ya nanguwul ku wax dara dara ci sem rew seppi la ca ah léegi yàlla nag moom addinaam bi nëpp ñu ne ko dañuy seppi sa loxo ci addina bi te bëgg nañ addina bi jag yàlla ni loolu c'est impossible c'est impossible addina bi moom bu ci bu ngeen ci seppee sama loxo dara dootu ci baax dara dootu ci baax addina bi kay da ngeen ci def sama loxo maag yéen mbaa dara du baax rek addis boobu yonent bi sa alayhi wa sallam wax te Seydina Abi Urayra nettali ko radiyallahu anhu sëñ Tuubaa dinaa koy faral di wax boo gisee ma gëm ay waxam ni ma gëmee alquran mooy lépp lu mu la wax rek caaju si yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko jëlee mbaa mu jëlee ko ci alquranul karim moom sëñ Touba ña ay waxam waxi sëñ Touba du génn ñaar yi du génn alquran wala hadis moo tax ma gëm ay waxam ni ma gëmee alquran radiyallahu ta'ala anhu gis nga hadis boobu nga xam ni moom la abi urayra wax léegi moom la sëñ Touba di wax ci masalikul jinaan moo tax mu ni wa fil hadisi man yurid xayran bihi rabbul wara ibtalaahu faltantabih mu ni nekk na ci addis yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku yàlla nam ci yaw aw yiw benn mu bëgg laa texeel mbaa mu bëgg laa jéggal say bàkkaar mu ni borom bi nga xam ne mooy borom bindeef yi mu di la nattu Sëñ Tuubaa nee na faltanta bi yewu leen ci loolu yewu leen ci loolu mu ni li mukk siran lahu xujur bi zalikal balaa faltakun sabuur nee na boo gisee moom sëñ tubaa ci masaalit la ko wax nee boo gisee suñ borom di nattu ab jullit bu dee ci yéefar ba mbugal lay doon waaye nee na saa boo gisee suñ borom di nattu ab jullit nee na ñaar rek la ci yàlla jublu benn da caa jublu yëkkati dara jaam mbaa jéggal koy bàkkaaram sëñ tubaa nag ni kon maa ngi lay dénk natt boobu bu ñëwee nanga ko muñ faltakun sabuur sëñ tubaa nee na maa ngi leen di dénk saa leen yàlla nattoo na ngeen ko muñ faltakun sabuur nee na wa fiihi maa yusiibu muminan nasab wala jawan wala xasan wala wasab walaw bi sawkati tuqiimu qalbahu ilaa waxatta allaahu anhu zanbahu te loolu mooy addis bi wax kat noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee moom sëñ Tuubaa amul benn natt buy ñëw lul ni yàlla bu fekkee natt ba ci kaw julit la dal lul ni yàlla lii rek la ca namm nee na xam yàlla da koo nattoo nasab toona bu dee dakk jawan wala njàqare ju te dakk tiitaange asan wala lor wasab wala tawat feebar sëñ tubaa nee na doonte sax danga doon dox ci kaw yoon dég jam la dég nga yëg mititu dég wi ci sax xol jam-jamu mititu dég wi yëg nga ko ci sax xol nee na muy metti ci sa xol di ñur ñur ci sa xol nee na boo ko muñee te yàlla tax soo demee ba yëgatoo mititu jam-jamu dég bi rek nee na suñu borom jéggal na la say bàkkaar ilaa waxatallaahu san sanbahu lu ni yàlla sippi na sa bàkkaar yëpp saa boo mu muñee nattu te yàlla tax fu nattu ba jeexe rek yàlla sippi na say bàkkaar yow amatuloo bàkkaar kon al imaanu bil xadri dafa am solo foo wa sarrihi nag mooy gëm nattu gëm dogal gëm dogalu yàlla gëm ni li am yàlla danaa ci ñëw ci kanam donte loxoom nit a ngi ci waaye yàllaa de hmm, yàllaa de hmm. Abdul Xadim nee na radiyallahu taala anhu muy sëñ Tuubaa yowmal xiyaam ñi yàlla doon natt fii ci àddina ñu ni ko muñ te yàlla tax bépp natt bu leen fi fekk ñu muñ ko te yàlla tax bu yowmal xiyaamee yàlla du set seen dara ahlul balaa laysa la um miisaanu wa laysa yunsaru la um diiwaanu بل إنهم يسب أجرهم لهم زبرا بلا بأس خدا بسرا لهم من مسالك الجنان ينمم يعني عبد الخديم ديلا أنه أهل البلاء تمويني يالا دون نبتو بني نكي أدينا كم جيني نبتو ينك بارينا خيف تخيس نبتو يلا بوك ñak ci xéeti natuy la bok titangé jiyu bu so fit fum toll ngay fir firi ci xéeti natuy la bok ñu def la li ñuy tuddee confirmant te mooy jëng la sa kër dootoo génn ci xeeti natt yi la bokk xeeti natt yooyu rek mu ni bépp boo xam ne nii nangu koo muñ te yàlla tax mu ni ahlul diwaan ñooñu nga xam ni mu ni ahlul balaa ñooñu bu yow mal xiyaamee yàlla du seet seen mbir mu ni ñuy def ak ñoom mu ne xanaa bu leen di fay day tibb di jóor rek waaye du ko peese du ko natt day tibb di jóor rek di tibb di jóor rek mu ni waaw yow suñ borom ni ngay fayee sa jaam ñii beral leen loxo ana lii lu ko waral mu ne ñii day dañoo nekkoon ay muñkat yoo xam ne saa bu leen nattu masaana fekk ci àddina ñu muñ ko ngir yàlla mu ne moom sëñ busra lahum mbégte ñeel na leen ëllëg yow mal busra lahum jooye gaay mbégte ñeel na leen ëllëg yow mal xiyaam xam ngeen ne nattu ñaar la bu neex ak bu naqari alxuraan ko nattu daa am bu neex am bu naqari sun borom nee na ci alxuraan rabbi situ wa jàlla wa balaw naa um bil xasanaati wa sayyiaati la allahum yarjihuun ma nga sóorutul ahraaf sun borom nee na wa balaw naa um bil xasanaati wa sayyiaati la allahum yarjihuun man yàlla duma deñ mukk léeg-léeg ma nattu leen ci ay xasanaat xasanaat ci xeetu nattu yi la bokk di ci ibtilaahu yi la bokk de nga làmb sa compte banque mu fees nga bég bay figéré suñu ni ab nattu la de teraanga jooju mu ne mu ni de nga làmb sa kaangum bopp mu fees dell ak xam-xam suñu borom ni hmm, ibtilaahu la de nattu la de attention de wala nab la wannakum bil wa balaw naakum bil xasanaat eh, eh, nga lamb sa yaram fenn wut nga wér pelak de catañ catañi ci bil xasanaat yi la bokk de waye natul la de sun borom natul ko tuddé sa pos dis gan aja jo am mu faju sun borom ni yëpp natul la de natul la bo xani bu fekke ni muñ nga ko ci sa compte banque bu dun bobu ba la nga ci wara defal yalla nga def ko ci ak yalla jep nga genné ko ci natt bobu xam nga lum lay jural moy njëggalu bakar ak taxay yow mal xiyam waye nak bu fekente ni alal ji dugaloo ko fonk wara dugal jaar lo ko fonk wara jaar legi nattu la bo xamne ne day mujj soppiliku musiba këpp ci saka wal billah yow mal mu yobela ak di muni wasayhat waji nan sangara julit bi nan sangara lolou lu ko gën a doonam nattu wasa ban sun borom daf len ci faral di nattu wasa wasayhat yàlla nattoo njaaloo laa xadarallahu wala saman xoolal ma boobu nattu yàlla nee na waaye nattu yi yëpp nag li muy bari bari bari la allahum yarjihoon damaa bëgg ngeen am réflexion dellu siwaat ci man ni yàlla baal ma dootuma ko defati tuub naa ko tuubi ruubi tuub naa ko tuubi ruubi la allahum yarjihoon yàlla ne bu ngeen gisee ma di leen nattu xeeti nattu yii léeg ma jox nit alal nattu ko ca léeg-léeg ma ñàkkloo nit xañ ko loolu ba tey am nattu la mooy suñu borom xañ la moo xam wiru yaram la la xañ moo xam alal la la xañ lum la man a xañ rek am nattu la suñu borom ni loolu lépp nag la allahum yarjiun damaa bëgg ngeen dellu si rëppeelu fi sama kanam dam seen bëti woom wan ni ma yàlla yow dong yaay yàlla moo tax ma di leen nattu ñi ma ko waxee léegi buuri addina yi ko ci fell ci dara jaam lu toll ni fepp sarra ca la ko yàlla jox ci dara ji ci addina mu jëflante koog yow waaw ñu jëflante ko yow ak li ñuy woote démocrate démocrate ko ci fel dara jaam mu jëflante ko yow gisoo ñuy bëgg a naqaral président de la république duñu wax mukk président Macky Sall Macky rek la ñuy wax Macky te am na garaatu président ma ne lii boo ko waxee Arabie Saoudi buur bi laax nga sàllalu ko wala nga ubbi sa gémmiñ wax te ñaanaloo buur bi doog a tàmbali yow kaso ngay fanaani kaso ngay fanaani bu keroogee ah léegi nag yàlla moom yàlla bind addinaan bi moom ko ba noppi ñu ne ko bokkoo ci seppir sa loxo yow bokkoo ci ñu addina yi doxe sa yoon nekku ci waaw ku mas a dégg lii ku mas a dégg lii ñu addina yi doxe yow yàlla sa yoon nekku ci sepp ci sa loxo te bind addinaan bi moom ko yow mu dénk la ci am réew képp am réew képp la la ci dénk sarax la dénk la ko ku fell sa daraja nga ne ko ay di buri sara ba noppi nak nga ni réew ma ñepp and di fell daraja yalla ba noppi nangu wo ca la ilaha illa hmm? sun borom ni li rek la natt yoyu bu ku ci sab dem wala ku ci sab cër nek fala budda ta ñak bo demone ba grat sel ye ya gëna kawé kawe mu fekk la fa koo xam ne sa cër nekku ca boo doon am ak contact ña yore nattu ya du tax mukki nag yàlla subhanahu wa taala jox la ko sun borom nee na wa ma hum bi daariina bi min ahadin ila bi isnillah bi daariina min ahadin min ila bi amul kenn ku mën a am ak contact kenn ba wàllu ko dara lu ni man yàlla maa ko والله من خيو خيو اديني بما تي داف تادبر داف ماي ديباسي خولال غيسغا فيروس كورونا بي كورونا فيروس بي ني واخ ني ني نين كوي امي تي كونتاك من نين كو تي جيلي نيت والا لاكو مو ني غاي بو لين ني واليو داي والي دا ني لانك با تدي جي ناجوي لو تخ غاي اما كونتاك واليو واليو بي والا لا واي غاي نونغ وين كو ديغ seigne moussa ka neena wali day walé sang day sangé lutax rek walu bi nga am ak mom contact gis nga bu yalla namé ni bu yalla namé ni walu bi subhanahu wa ta'ala contact bi ngay am ak mom amna virus bo xamni dina la ko wal kenn mën ta mu wal la ko am ak walu contact rek mu wal la virus bi ne ci mom virus. wilaya gi virus batin bi virus xam yalla gi virus virus virus da la koy dal wal waye mi ngi aju ci rek sun borom dogal ko ci ndel ben nga dinaa koy faral di ñett li ku ñuy wax euh, euh, sunanul misri kenn la ci nit yàlla yi mag yi bi nga xamante ni benn waay dafa jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yegg ci yàlla waaye nag am na lu ko dese mooy lan mooy tur yàlla bi ñuy tuddee ismilal anzam nga xam ne loo ci ñaan suñu borom def ko rabbisti ba jàll muy wër nag rasaatu ba xam tur woowu fan la koy jëlee ñu ne ko boo mee ci benn waay bi ñuy wax sunanul misri boo demee amee na ko mën na la koo jox mu daal di ñëw ci sunanul misri yi ni ko man day damaa bëggoon tur yàlla woo ñu tuddee ismilal azam ma bëggoon nga jox ma ko mu ni ko nag léegi danaa la ko jox waaye kon ci kaw nii dañ la koy tërbiyee maanaam faaw nga am man contact mu daal di wut benn bool ub ko jox ko ko ni ko soo boo xëyee na nga xëy yanu bool bi jéggeeg moom dex ga yendoo faak moom ba ngoon waaye bu mu ko yàggaale ba nga ubb bool bi nag super bi mom bum ko yagale ba nga ubbi ko waye sa bo xey rek yow sa liggey contact bi dox sama digënté yow pour ma jox la tour yalla wo moy so xey na nga yanu bol bi ba jéggi jax ga yendu fa ak mom bu ngone nga yanu wat ko jéggi jax gi ñew fanan ci mu diko def diko def waye gis nga bi ci wërsegam nekkul nga xamni zununul misri yalla dogonut mu war ko wal virus bi mu amé muy virusu ismul azam bobule iblis bi nga xamé waji di def sa bu xey yanu bol bi yandu jek mom gannaaw bu xëyee ñëw bu guddee mu ñëw def na ko ba bis ba mu fa ñëwee woon dellusi si sa déwén sa ba nga xam ni guddi googa bu ñëwoon rek zununul misri daal di koy jox tur yàlla wi waaye iblis xëy dogale ko ñu ko yow yaa nooy bopp te ñàkk fayda mu ne ah mu ne ko yow tur yàlla bi ngay wut ci zununul misri mii xanaa xamoo ni boo demee tur yàlla yi moom la la defal ci bool bi atum lëm ponkal mu toll ni yow rek jéggi ko dex gi jéggi ñëw yow ñàkk la ubbil bool bi xool ba xam turu yàlla waa ngi ci daal ni moom iblis waa ji ni ah, waaw boo demee wax na dëgg fi boo demee li ma fi nekk di nari lépp turu yàlla waa ngi ci bool bi ba mu ne kulbet bool ba rek am picc ni për naaw dem ah aw fitam dem mu jaaxle ñu ni waaw léegi mi mbir moom nu ma koy defee nag nu ma koy lijjantee yàgg mu ne waaye nag comme un an ngi nii yoo xam ni damay yenu bool bi ñëw teg fa te du ko ubbi du ko vérifié xam naa bu ma demee teg ko fa du ci xam dara du ko vérifié ah da ngaa yaakaar nitu yàlla mën nga koo nax xanaa bu la ca bàyyee rek bu la ca bàyyee de mën nga koo nax mu naa dem rek teg ko fa na ma ko fa daan tege comme mosu ko vérifié xam naa bu ma ko fa tegee du ci xam dara ba mu ñëwee ni tegg bool bi rek sunul misri daal di xàqtaay mu xam ni yëg na mbir ma mu ne ko gis nga cara ba nga accès lama yàlla xamal ni même boo amee man contact mënuma laa wàllu virus bi keroog la ma ko yàlla xamal yàlla xamaloon na ma virus bi mënuma la ko kon daañu gis ni noonu nga xam ni nit ki boo amee moom contact mu wàllu la virus la ñu ñoom tamit boo dee am ñoom contact dañ lay wàllu virus bi ne ci ñoom bu fekkee ni yàlla nëmm ko nag du ko yàggaale mukk bañ wàll la ko wa maa bi daarina bi min ahadin ilaa bi isnilaa rek waaw ilaa bi isnilaa mané kon nak bépp bakkan bu yalla neumul ni dana ci jot du ci jot dëgg la nag waxoon naa ci waxtani wessu ni moytu yalla nu ko sant nim nu sant ni amu dara luy am lu man yalla mako dogal non lañu ñu dogal moytu nak aka fagaru aka fegu sun borom neena ci alquran wa ma li nafsin an tamut ila bi isni la lutah kitaban mu ajala nga ali imran kitabun mu kitaaban mu ajala suñu borom nee na amul amul benn bakkan benn bakkan buy rot fenn fenn du ci benn réew du ci benn quartier du ci benn gox du ci benn yoon du ci benn dëkk bakkan rot fa lu dul ni man yàlla maa bindoon ca ësal ca law ul mahfuus ni bakkan bii réew sàngam lay faatoo dëkk sàngam lay faatoo kër sàngam lay faato waxtu sàngam lay faato mu ni amut muy ndax bakkan bu nekk kitaaban mu ajala kitaaban mu ajala mu ne bakkan bu nekk wutal naa ko randiw bakkan bu nekk wutal naa ko randiw boo xam ne fa lay yem munu ko weesu munu ko weesu mhm. waaw yow mi jënd crédit def ci sa portable ñun la crédit bi 1000 francs la ngay woote ñun la unité nangam la ngay woote par unité par unité par unité ba unité yi la waxoon jeex crédit bi yam ca képp daal di jeex. nga bëgg ni da ngay continuer di woote te doo am crédit suñu borom ni loolu mënta ne wa ma kaan li nafsin an tamuuta ilaa bi isnillah lu tax kitaaban mu ajala yàlla nee na bakkan boo gis bakkan boo gis wutal naa ko frontière boo xam ne fa lay yem rendiwam foofa lay jeexe foofa lay jeexe kon nag daañu gis ni amul kenn koo xam ni mbir mi dana la laal lu yàlla namoon na ko waaye nag ginnaaw bi nga defee sabab yi ba noppi boo defee sabab yi ba noppi léegi yàllaa ci des waaye nag bu fekkee ni defoo sabab yi nag am nga masuliye ci bula feebar bi dalee am nga ci responsabilité ak lu la ca mën a fekk sa loxo nga ci biir sa loxo nga ca biir waaye nag boo defee lila yàlla sant lépp akub yonentam te mooy fegu ak moytu te li yàlla sant weesuwut lii docteur yi ma dégg ñu di ko wax rek ay setal ak mm, mm, moytu ndikul Euh, contact yeeg et cetera et cetera yu mel noonu yooyu lañ lay wax lu ci ne addis jàngal na la ko wala sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii alquran wala sunna waaye boo ko see def nag sabab yi moom léegi yàllaa ci des bàyyil ak yàlla lu dikk rek xéwal ak jullit lay doon ak jullit daal boo ko see def ay sabab ba noppi lu ñëwati xéwal la ci moom lu ñëwati rek xéwal la lu ñëwati rek xéwal la wallahi Baye Sam. yalla ko yalla doli yërmande ak njëggal te taas ñu ci barkem dafa ubbi sama bop ci yu bari yalla mako yalla fayal ñu nos tok di waxtaan ma diko ko mbir mu doyoon war mu ni ma musafa ma ni mbay mu ni ma yalla xamoo yalla man def lu mitti waye yalla du def lu gënut wallahi momako wax yalla man naa def lu mitti waye yalla du def lu gënut sun borom lu def lola gënut Mhm. mu ni ma yàlla mën naa def lu métti de waaye du def lu gënul mukk kon nag suñ borom rabbi wa jàlla lépp lu def rek aw yiw la namm ci jaamam ñi waaye yàlla bindul jaamam ñi ba noppi nag ngir fitnaal leen déedéet aw yiw la namm ci ñoom waaye nag bi nammee yiw ci ñoom ba noppi nag jaam yi ñoo war a sabablu lay tax ñu mën a jot te yiw wa virus bii ni ma ko waxe woon buñ ko xoolee waxoon naa ci dimanche wala weesu ni man man am naa kóolute yàqin ci ni juif yi ak euh, ñi nga xam ni ñooy Occident seen laboratoire yi mën naa defar virus bu faagaagal addina waxu moom réew addina laa wax loolu wérantiwu ma ko man xam naa ko waaye nag taxul ma dogu ci ni nag virus bi ñoom ñoo ko defar ma ne ak mën a xew ci loxol doom aadama la jaar ci loxol doomu aadama la jaar de moom virus bi ndax ñoo ko ci jublu woon wala boog da leen rëcc wala ñoo ko tey wala teyuñu ko ndax bu leen fàtte ni maa ngi leen di wax ni tubaab yi dañoo bëgg yilif addina bi rawatina soldaaru addina bi gis nañu ni buñ defaree bombe nucléaire ñeneen defar bombe nucléaire ñu gis ni bu ñu demee bombardé ji seeni nit mën nañ caa dee seeni avion mën nañ caa tàkk jamono bii may wax ak yéen ñu ngi ci xalaatu nu ñuy def ba liggéey benn bombe nucléaire boo xam ne virus lay doon buy rey boo xam ne buñ ko yabalee ci réew mañ bëgg a faagaagal buñ demee li leen jaaxal nag li leen jaaxal moo ëpp seen bopp fi mu nekk nii mooy nu ñuy def ba maîtriser virus boobu ba réew ma ko tax a jóg du ko génn problème bi ñu am mooy loolu ndax gis nañ ni virus moom boo ko xësee sànni bu fekkente ni. Eh, dem na ca réew ma ba faagaagal fa it virus booba ngelaw li mën na ko wàññiwaat mu dellu siwaat ci yow réew mi ko créé woon ba sànni ko rey sa waa réew bañ jeex te doo ci mën dara problème bi ñu am mooy mu ñuy def nag ba neutraliser ko ba nga xam ne réew muñ ko yebal du ko génn li nga xam ne boo jëloon bombu euh, nucléaire sànni ko ci réew du weesu réew ma noonu lañ bëgg a def virus yooyu le ndax nag ci yooyu lañ nekkoon ba mu rëcc leen walla xam waaye li mu wér daal mooy ñoom mën lañ ko. man nañ ko waaye nag liñ koy def def def dogalub yàlla ci ànd de dogalub yàlla leneen nga dégg ñu naan tubaab yee def nangam waaye nag yàlla ci ànd de sun borom nee na rabbi situ wa jàlla wallahu xalaqakum wa ma taamaluun maa leen bind bind virus bi ngeen di defar ba mën a faagaagal am réew maa leen bind bind bomb nucléaire yi ngeen di def ak euh, fital char de combat yi kum doon yalla rabbi siti wa jàll jalaaluhu wallahu khalaqakum wa ma taamaluun léegi boo ma nee kat yuris bi ñoko defar yoonu yalla neeku ci ah loxo yi ko doon defar ku defar loxo yi bu neexon yalla mu paralyser loxo yi paralyser lo bëtam yi ko sax ba du gis sax euh, euh, appareil bi nga xam ni mom lay virus yi wala xalaqakum wa maa ta'maluun gis naa ci ñuy werante man leen yéen da ngeen a tardé lii mu'tasila ak ahlu sunna wal jamaa werante nañ ci ba teg ko fële ci diggante yàllaa def ak yàlla defut mu'tasila bu dee xadri yoon yi moom werante wuñ seen mbir ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne ay yéefar lañ waaye mu'tasila boroom xam-xam ne dañ ci féetli ko ñaar ñii dañ ñi kat ñii duñ ay yéefar ndax liñ gëm d'accord baaxut waaye nag taxut ñu doon ay yéefar ñenn ñi nit ñi daal ay yéefar lañ rek ndax dañoo weddi li ñuy tuddee xadrul ilahi dogalub yàlla xayrihi wa sarrihi al imaanu bil xadar xayri dañ koo weddi xoolal muxtasila dañoo wax ni ñoom ñun day d'accord nañ ni nit ki yàllaa ko bindu ñu ni waaw mu ni waaye nit ki yoonu yàlla nekku ci ew eh waaye ndaw ew eh waaye ndaw muxtasila yi ñom loolu lañ wax nee ba ci ñi nga xam ñoy manam yu yóne yi ñoom tamit xam ngeen leen ñom it nañ ci seen xalaat waye taxuma jóg na wax rek muxtasila ñom pour bi may wax ci li may wax ci al iman bil xadri khayrihi wa sharrihi muxtasila dañu ni yàlla mo bind nit ñu ni waaw mu ni waye jëf nit yoonu yàlla niwu ci waaw ku ma sa deg li ñu waye li ngeen di wax lu mu doon ñu ni inna allaha xalaqa al abda wal abdu يخلق أفحله يخلق أفحله ñu ni yàlla bind jaam bi waaye jaam bi yoonam lim li muy def yoonu yàlla niwu ci yàlla amu ci benn participation ahlu sunna wal jamaa ni leen yéen alquran a leen fen loo ndax alquran nee na wallahu xalaaxakum wa maa taamaloon man yàlla maa bindi doom aadama ak i jëfam ahlu sunna wal jamaa ni leen ah naa yéen mbir mi noonu ngeen gis ñu ne waaw ñu ne kon yàlla maanduwut mu yéen laa xadrallah wala saman ñu ni yàlla bu fekkee ni moo bind nit bind jëfam kon nit ki bu moyee yàlla yowmal xiyaam yàlla lakk ko yàlla maanduwut ndax yàllaa ko bind ba noppi bind mooy yàlla googee mu def kon lu tax mu di ko lakk kon mérité wul yàlla lakk ko naka noonu nit ki bu jaamoo yàlla ba mérite dem àjjana bu ko yàlla yóbboo àjjana ngir jaamu yàlla gi mérité wu ko loolu kon yàlla dafa maanaam maanduwut parce que mom deful lu wara tax mu diko ko récompenser ndax mom ci bopam lolu mu def yalla déggal seen lay juunu yoyu ñu lay ahlu sunna wal jamaa ni len yeen dal ngeen al imanu bil khadri khairihi wa sarrihi motax ngeen di waxe ni ñu ni len kay la ñu jox len ñett exemple ñu ni waaw ñu ni ñett ngi ni ñoo xamni frère lañ ñoo bokk ndey ak ñetti fileer yu bokk nda ak baay ñu bokkee ndey ak kenn ki juddu dee ñaar ñi juddu dund kenn ki di yéefar kenn ki di ab julit bi nga xamante ni yàlla dogal na julit bi dund di jaamu yàlla ba xëy dee yéefar bi dund ci kéefar ba xëy dee bi nu faatoo yàlla yóbbu jullit ba ca àjjana ya gën a kawe yóbbu yéefar ba ca safara ya daal di jël seen frère bi nga xam ne daal juddu dee yàlla yóbbu ko ci àjjana ya gën a suufe benn bis nag seen frère boobu ne ci àjjana yi suufe di wër di xool ba yàgg mu tokkamti ko seen frère am bële ca ya gën a kawe mu daal ni waaw suñ borom lii nag suñ borom ni ko lu mu doon mu ne ko sama frère ba nga yóbbu ca àjjana yi kawe yële man nga bàyyi ma ci àjjana ju suufee ji lu tax suñ borom ni ko waaw moom dafa juddu ma bàyyi ko mu dundu jaamuma ma dee ci barkeb jaamu gi ma doon jaamu ci laa ko yool moo tax mu dem ci àjjana yu kawe yële ah frère am boobu nga xam ne moo ne ci suuf ñu ko waaw kon yow borom lu teewoon nga ba ma juddoo nga bàyyi ma ma dund bañ maa rey su ko mayit ma jaamu la nga man ma yóbbu ci aljana ya nga yóbbu sama frère bële sun borom ni ko waaw waaye man dama xam ne bu ma la bàyyee nga dund doo doon jullit yéefar ngay doon te kon safara nga jëm ba mu waxee loolu seen frère ba nekk safara di ko dégg daal di daal di noppam yuuxu ca kaw daal ne ah yow sun borom yow gannaaw kon xam nga ni man bu ma juddoo dund màgg yéefar laay doon bu ma doonee safara si nga may indi ana kon lan mo tewon man bama ma rek fa saasa nga rey ma ni nga raye sama frère bobu sun borom ni len eh fa halu lima yurit man yalla may seet luma sop ma def def nako dogalu yalla yàlla fa halu lima yurit man yalla may def luma neex ten yilifuma luma neex def ma def li lu ci way man fa halu lima yurit ngoog motax mom signature moy fa halu lima yurit luma sop def ben jam munu ci tigini benn jaam munu ci pikini fa xaalu li maa yurid lu ma soob def man yàlla rabbi wa jalla jalaaluhu xalaxanaa wa mawlaana xalaxanaa wa mawlaana kon diggante ahlu sunna ak al muxtasila seen werante boobu foofu la mujj moo di dangay ngay dogal dangay ngay gëm dogal ahlu sunna wal jamaa xam nga luñ gëm dañ ne inna al wa sarra maxluqaani lillah lu baax yàlla safaan biit yàlla kat jàng naa ay alquran bi léegi wa balawnaahum bil xasanaati wa sayyiaati la allakum la allahum yarjihun nga suurat Ahraaf fekkee juuma <clears throat> li baax mooma waaye safaan biit mooma kat léeg-léeg bu may jàngale fii ci majalis bii dinaa koy wax donga yi bu ma agsee ci buntub <clears throat> al imaanu Euh, bil bil xadri al imaanu bil xadri dama leen di faral di wax ni ma leen koy misaal ma leen naan gëm dogal bi yàlla bu neexal bu naqari ñu ne waaw sëriñ daara bi xëy toog waxtu yor yor jot am ku ni asalaamaaleykum ni waaleykum salaam mu ni sëñ jiw laaj mu ni mi ngi nii mu daal raam jox ko am loo bu duun ñu ko dama fee jaaroon rek doon la siyaar daal di tàggoo ni ñaanal ma ñu ñaanal ko mu dem loolu du alxayru kum doon yàlla ku orienté waa ji ñëw yàlla ku ko dogal yàlla ñu ni ma waaw man leen ayca léegi nag waa ji xam na ni ay agresseurs ngi ci dëkk bi mu xaar ba julli gee enveloppe boobu ko waa ji jox mu dugal ko ci poosam ni day doxantu bi mu doxee ñaari mbedd dajeeg agresseurs ñu dóor ko ba damm ko jël enveloppe ba dem seen yoon ko ko dogal yàlla léegi nag kon lu ci waa ji jëf ma ne jëf ji ci waa jëf loxal waa ji mooy lan moo tax mu xaar ba guddi muy jën di doxantu ak lan moo tax bi muy doxantu mu yóbbaale enveloppe bi au lieu mu bàyyi ko ci kër gi ndax bañam soxnaam soxnaam gannaaw ko ci rek soxnaam gannaaw ko ci la doon bañ loolaay li ci li ci waa ji dogal loolaay loxab waa ji enveloppe boobu lu tax mu di ko yóbbaale bi muy doxantu mënoon na ko fee ba benn beneen bi ci def mooy mënoon naa bañ doxatu ci doxantu ci gannaaw ge ndax ginnaaw xamna ni ay agresseur ci kër gi wallahi gëna xóot loolu sax waye fofu la ci yem ñu gis na kon ahlu sunna wal jamaa liñ gëm moy li am moy lu baax borom be safan bi borom be nat bu neex moma bu naqari bi moma alquran neena na wa jaala zulumaati wa nuur man yàlla ma bind ay musiba waye ma bind aw yiwit nak man yàlla ma bind ñak waye ma bind am man yàlla ma bind wér maa bind wéradi man yàlla maa bind leer maa bind lëndëm man yàlla ma bind dund maa bind dee man yàlla ma bind gudd maa maa bind gàtt wa jaala zulumaatin wa nuur wa jaala zulumaati wa wa nuur wa jalla jalaaluhu xalaqanaa wa kooku rek ka kooku rek ka wa nuur maa bind xam maa bind xamadi maa bind man maa bind manadi maa bind wér maa bind wéradi maa bind am maa bind ñàkk ma bind musiba maa bind yiw ma bind balaa ma bind ludul balaa ma nga suuratul anaam rabbi si jàll kon nag subhaanahu wa taala dogal bi mooma loxal nit a ngi ci nag mooy loolu ma wax mooy ñoom ñoo créé virus bi waaye nag attention lu tax ñu créé virus bi ak ku leen may kàttan ñu mën koo créé allahu jàll allahu jàll mhm. allahu jàll bal baal dong yey bëgg añ nonu ñom bu ñuy bëgg añ mom seen coow day bari ni mu ni dana la jox alal ngir nattu la man na la ko xañit ngir nattu la lool hadis bi koy firndel moy hadis abi urayra bi mu netti ni sallallahu alayhi wasallam neena dafa am ñet nit ñoo xam ñi ngi bokkon ci bani israël kenn ki abras la kenn ki aqra kenn ki ahma kenn ki dafa am li ñuy tudde maanaam damaa xamul nu ko wolof wax xeetu puuni la dal maanaam ràmm ram mhm. kenn ki dafa ràmm kenn ki dafa am li ñuy tudde <coughs> xeeti tawati buñ ko mënee misaal daal tawati puuni xëy na kenn ki silmaxa yàlla yebal menn malaaka ngir nattu leen aradallahu an yubtaliyahum fa ba asa malakan suñ borom daf leen a bëggoon a nattu tax mu yónni malaaka ci ñoom bi malaayika mi ñëwee daat ni ki nga xam ne dafa ram ayu say i ahabu ilayk waaye fi mu nekk nii loo gën a bëgg malaaka mi yore melaw doom aadama ni ko waaw yow sa waay ne loo gën a bëgg mu ne ko ah man de li ma gën a bëgg mooy sama yaram wi ni mu mel ba tax nit ñi di ma daw wax deug yalla de bu ma sañon yalla saafaraal ma ko nit ñi ma daw malaka man ray ko mu pelak yaram wara tax mel ni yaram nit ñepp di mel bi malaka mi noppé ci loolu ni ko fa ayul mal ahabbu ilayk wa fi nak alal mom boko jan alal nga gëna bëgg ci alal yi khala al iblu man gilem la gëna bëgg gilem malaayka mi jox ko gilem bu nuppi ni ko ne ko yalla barkel ñaanal ko yalla mu barkel ko naka noni bi mu ñëwé ci ki nga xamni moy aqra muy ki nga xamni momin moom it dafa amee xeeti ràmm kazalik mu ni ko ayo lo gëna bëgg mu ni ko man ana wër rek wër wër daal la gëna bëgg mu ray ko mu dal di wër mu ni ko waaw ana lo gëna bëgg ci alal mu ni ko al baqara nak mu jox ko nak ñaanal ko yalla ni ko yalla na ci yalla def barke nak nonu bi ñëwee ci silmaxa bi ni ko yow ana lo gëna bëgg mu ne ko man xana yalla delo ma say bëd rek mu raay bëtam bëd yi di dellu si mu ne ko waaw bu dé alal nak lo ci gëna bëgg mu ne ko alxanam ay gatt mu jox ko gatt ni ko yalla na yalla barkel ñom ñatt ñoo ñu kenn ku nekk dem ba la nga xamni ni mom nga doon wut yalla barkel ko kenn ci amna na gétti nag yi yu dul jeex ke am ay gilem yu dul jeex ki ci dess amna ay gàtt yu jeex seen maanaam xur yépp fees ak seen gàtt yi yàlla debal yàlla yebal malaayika ma mu dellu siwaat ngir nattu leen nag ci alal jooju mu leen jox bi malaaka mi ñëwee ni leen inni miskinun man day miskin laa boo xam ne damaa ñàkk aw ma dara dama nekk ci ab tukki li mu wax ni addis de sallallahu alayhi wasallam moko wax abi urayra nettali na radiyallahu taala mu ni ci ab tukki maa ngi nii tumuranke jaaxle awuma dara miskin la léegi nak ashaluka bi la si lawnul hasana maa ngi lay laaj ci alal ji la yalla jox mi nga yalla mi nga xani mo la wéral ba sa yaram tawatee mo la melo wu rafet bi ñëpp man la xol ci yalla momu la lay laaje nga jox ma luma mana jappandiko ba yegg fuma jëm muniko yow sax da melni da la xamé mi ngi wax ak ki nga xam ni mooy ki amee li ñuy tuddee abras maanaam euh, bu fekkee ni ràmm daal lañ ko mën a tudde mu ne ko yow daa mel ni daal laa xàmme daa mel ni yow yaa fi amee woon ràmm jooju ah te yàlla yebal jaam bu ko saafara ba noppi jox la alal ji bare bari mu ne ko man di nga doom aadama de ni manee weddi njekk mom dal lu ñew mu bëgg caa seppi loo xam man ah mukk koy danga ma jaawale du man de mu ne ah du yow sa alal ji ci ñaan googa sax nga ko jëlee mu ne ko inna ma warisu hadha al mal sama alal ji da ko doon kat ci bàyyi ak ñom ñom bàyyi ak ñom mam ñom bàyyi ak ñom mam ci la ko doone de mukk du man mu ne ko ah way sa way yow mi du yow de mu ne ko waji du man malaka mi ko malaka mi ko in in kunta kasiban fasayaraka Allah ila ma kunt ah nee nga du yow mu ni du man ni ko bu fekkente ni fen nga ni du yow yàlla na la na nga ah mu di tok ay fan ràmm nga dellu si mu alal ja dal di torox mu dem ci al aqra kasalika ne ko man de damaa ne ci tukki maa ngi ni o ma dara miskin laa ma bëggoon ku ma sarax ci war ma yàlla mi nga xam ni moo la jox alal ji jox la wér te yow sax daa mel ni daala xame daa mel ni yow mi yaay ki nga xam ne yaa fi amee woon tawati puune jë mu ne ko yow xanaa da ngaa jaawale mani lan du man de nga ma jaawale seeti feneen man yoruma lu may joxe mu ne ko in kunta kaasiban fa yaraka ila ma kunt wallahi bo fene yal na la yalla delo na nga melon dadi di ñetti fan bir ma delu ci wat mu ame wat tawat de ñak alal ja mu daldi waxu waaxu gumba ga man day miskin la damay tukki bëggoon commencé rax luma yeggale sama tukki bi maa ngi nii awma dara man la koy laaj nag ci war na yàlla mi nga xam ni moo la delloo woon say ba jox la alal silmaxa sa ni ko waaw waaw man day man nit ku ñàkk laa woon silmaxa di yalwaan aw ma dara waaye yàlla ma defal tawfiix jox ma tiraanga ji delloo ma say bët léegi nag yow xus maa sita minal maal alal jàngoog loola soob jëlal loo bëgg ci alal jërëk jëlal ndax yàlla ma ko joxoon dong kat yàlla ma ko joxoon kon nag loo bëgg jëlal malaaka ma ni amzik maalaka fa innama btulitum mu ne ko jëlal téyel sa alal yàllaa ma yónni woon ngir ma nattu leen ba seen am am bi nu ngeen ciy def yàllaa ma yónni woon ngir ma nattu leen ba seen am am bi ngeen ciy def léegi nag yow faxat radiyallahu anka yàlla gërëm na la yàlla kontaan na ci yow bàyyee na la ak sa alal waaye nag wasaxita ala saay bayka sa ñaari mbokk yi nga xam ne dañoo wan yàlla ak ngoree di ñu ko yow mbir mi sa loxo bokku ci léegi nag ay ca ñoom perte nañ alku nañu yàlla mer na leen yàlla dañ na ci ñoom moo tax suñu borom wax ci inna insaan li rabbihi lakanuudun wa innahu ala thalika la shahid wa innahu li xubbil xayri la sadid rek suñu borom nee na ay waay doomu aadama innal insaan li rabbihi lakanuudun waay waay doomu aadama yaa goree di li mala la defal ci tiraanga te nag tiraanga ji ma la defal jëpp jëpp saa booy wax rek sepp ci saa loxo rek looy def rek génne ma ci innal insaana li rabbihi lakanuudun suñu borom ne na innahu ala saalika la sahid de moo ko tey moo tey xam na ni tiraanga ji mu am maa ko jox moo tey xam na ni yaram ji am mana xam na ni wéru yaram gi mu am mën xam na ni tawat ji ko yàlla tawat ji mu mucc man yàlla maa ci musal mun waaye xam nga lu ko yóbbe mu may weddi xam nga lu ko yóbbe muy sant siñ diw bàyyi ma mu ne ah mu ne wa innahu li hubbil xayri la sadid bëgg tiraanga doo nga tax mu di ma weddi bëgg tiraanga rek moo tax du ma delloo njukkal mukk wa innahu li hubbil xayri la sadid borom ne ah afalaa ya'lamu isa sira maa fil xubuur waaye bisa ngi ñëw daa xamul ni danaa ko rey dekkalaat ko mu ni pulet ci bàmmeel war a ñëw wuyu si ma bu ba keroogee si maa fii su dóor li wan ci dënnam lam doon nëbbu lépp ma ni ko wu ñett teg ndax inna rabbakum bi im yow misin la xabir yàlla mooy expérience bi dara umpul yàlla mooy expérience bi dara umpul mhm. nii la doomu aadama di jëflanteeg yàlla mhm. waaw waaw nga tawat ji mucc nga ci tawat bi Modou Mbaye Thiam ñëw ne la sa waay na nga def ak coronavirus bi nga ne waaye sant Moustapha mbay Sam rek moom kay ñaanam yi déedéet waroo woon a wax loolu loo war a wax sant yàlla ak Moustapha Mbaye Sam di moes bopp waaye lu tax nga bëgg cee seppi yàlla ñeel sant yàlla ak Moustapha Mbaye Sam waaw kay damaa joxe misaal rek nag dama joxe misaal rek hmm? waaye bëgg ni sant Mor Khoudia rek luñ la wax rek nga ni sant Mor Khoudia déedéet santal yàlla teg ci Mor Khoudia loolu la ci tawat ji nga ni waay xanaa sama juróom-ñaari inna atay naakal ya muy yéen ana yàlla ana yàlla subhaanahu wa taala hmm? mbir maa ngoog ab jullit jullit dañu bëgg ci moom xam naa dana mos a waxtaan waxtaane tibaak Tuubaa ak tawhid loolu moom danaa ci mos a ñëw incha allah xam naa bu keroogee yàlla bu ma gaa yi fekk fii ki yat waaye danaa ci ñëw sëñ Tuubaa ak tawhid incha allah am na bu ma ci defaloon waa Touba TV xaw ma nu ñu def ba euh, nee ñu dafa rëcc dafa rëcc seen machine bi la xaw ma seen sapa daal waaye en tout cas mujj ñu koo teg ala kulli xaal waaye sëñ Touba ak tawhid dinaa ci mas a ñëw dañ xam ne sëñ Touba kenn dëbu ko ci taw tawhid waaw dama wax ni Ibrahima xalilullahi sax li muy am am tawhid ay bu jamono wante woon ak sëñ Touba yàlla bu mu ko séen ca kanamam Ibrahima xalilullahi li muy am am tawhid bu jamono wante ak sëñ Touba ay yàlla bu mu ko séen ca kanamam. suñu borom nee na wa isa masal insaanu durru daa rabbuhu muniban ilayhi suma isa suma isa qabalahu nicmatan minhu nasiya maa kaana yadduhu ilayhi min xablu waa seetal lii suñu borom nee na doomu aadama saa bu demee ba cëgg desatul ci guy mu ne ma yàlla yaa fi ne bu demee ba cëgg desatul ci guy rek mu ni ma yàlla yaa fi ne nee su ko defee di bët ba ma dimbale ko xettali ko musal ko ca lam ragaloon waaye nag nee sama isa qabalahu ni'matan minhu nasiya saa bu ma ko musalee ci situation bi mu nekkoon ba jàmm dellu si daal nee na bu keroogee rek nasiya maa kaana yadduhu ilay mu fàtte ma man yàlla mi mu doon woo furru waaw génn ma ci ba ma set seppi ci sama loxo nasiya maa kaana yadduhu ilayhi min qabl ci la yam suñu borom ni bu yamon ci lool rek seppi ci sama loxo dong ñu may doono ci dara neena sax kon du graw waye li gëna graw la def moy wa jaala lillahi andada mu wutal ma nawle nak wa mu mutal ma nawle nan mor ko jaay yalla neena neena fofu la mujjé ak man bu yamon ci ni ma yow seppel sa loxo ci ndable rek neena du graw waye nak li gëna graw la def moy dañu ma legi sax nak man mor mor ko jaay yalla mor ko jaamu ci musal moy yalla borom ni setal ma li rek سيتل ملي ريك نبرم ربي سو جال واخنا نون نوني القران ولا قد دربنا للناس في اثر القران من كل مثل لعلهم يتذكرون القران لدى دي سوره سمر نبرم نينا امول فاصون كال مولين كالو سي القران بغ ريك نين ديلو بني ما ياوا امول خيت ومو ووما واخو يين سي القران بغ ريك نين ديلو بني ما ياوا امول نوما جيفلي وونتو يين سي القران بغ نين ما ياوا la'allahum yatasakkarun la'allahum yatasakkarun waaye ba léegi dara misaal mu ne jox naa leen ko ci alquran mu ne waaye dara ngeen léttu léttu dégg rek sax noppi mënumaa dégg déggu ma suñu ñi ngeen jaar man fii ngeen jaar ak man fii ngeen jaar ak man kon nag ne moom la ñuy tuddee virus corona daf ñuy fàttaliwaat bu baax bu defee tafakur xalaat alaaxira alxuraan danay wax ay mbir doom aadama yi jàppe ko bis penc ni yaakaar ni bis penc la fekk fii ci àddina lay tàmbali am na kilifa gu ma ko wax keroog kër su rajab ñu waxtaane ma ne ko ci alxuraan rek ay dëgg naa ma ne ko ñii nga xam ni coronavirus noonu la ñëwee imposé ñu ko te sañu ñu ko bañ mu naa ma ne yàlla waxoon nañu ko bu yàgg mu ne ma fu yàlla wax ma jàng aaya bi mu commencé jël muswar di fomp rankoñ yi sun borom da wax ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa shaibatihi wa banihi li kulli imrin min um yawma isin sanun yuxnihi suratu xabas sun borom neena yawma yafirul mar'u bi sa ngi ñëw bo xamni ni leen am waye ben ben ben virus corona coronavirus mu ne mu ne gis nga bu ñewé gis bobé bu ñewé yawma yafiru maru min aqi mun bay cham bu gise mustafa cham dañuy dandante meter du ko nango jege ken du ci nango jege morom yawma yafiru maru min aqihi bu mudu mbay cham gise mustafa cham ñom ñaar dañuy sorante meter ken du nango jege morom jo ku ni daw morom jo wa ummihi mu ne buñu bu kérogé da nga gis ku gis yaayam dane ko ñaari meter digg naa rek ben musicien bu ni mom bu gisee yaayam ñaari meter la koy dande ndax wóoru ko mi ngi virus wala diet wa ummihi waa bihi bu séenee baayam da koy daw de dande ko ñaari meetar wa saahibatihi day daw ay soxnaam léegi wóolatu la bokk ak ñoom lal bi wa bannihi ay doomam ku ko jege mu ne déet mbaa yuroo coronavirus suñ borom bu ñëwee li kulli imrihin min um yawma isin sahnun yox niihi réew mu ne sa bopp dana la doy bu keroogee réew mu ne sa bopp dana la doy ah egg nañ ca Amérique mi gënoon a lakkale amir mi gënoon a lakkale te dof bu am alal jiite ko ana mu tey ma nga nee ni nuut nuutooral ma nga nee ni nuut nuutooral dana toog ay waxtu mënta nelaw li kulli imrihin min um yow misin sahnun yuxnihi bisa ngi ñëw boo xam ni réew mu nekk da nga dal da nga doo doo tal kudul sa bopp doo tal kudul sa bopp réew yaa ngi kenn ko ni sa bopp rek kenn ku ne la nga am sax nangutoo caa dimbali beneen réew ma ci des déedéet ndax yaa ngi naan léegi ma manqué le ko léegi ma manqué ko mbokk frère di daw frère doom di daw nday di daw baay baay di daw doom yaay di daw doom jëkkër di daw jabar jabar daw jëkkër fi ne boo xoolee daanaka ñi gëm yàlla rek fi mu ne ñoo jege seen soxna yi waaye fi mu demal ci ñu mel ni ministres yi ak députés yi ak présidents yi ñoom ñëpp dañoo isolé seen soxna yi. wa bàññi ak seeni doom sun borom nee na bis boobu bu ñëwee xam nga nu ngeen di mela ñu ne ah, mu ne yow ma yakunu naasu kal farasil mabsuus da ngeen di mel ni lëppaa lëpp yi daloon ci kaw geer am dong bu daw ñëw ni bàcc geer gi lëppaa lëpp yi bu ñu naawee fu waay xam jëm la fu ne waay mbëkk fa duñ def kenn caawade kenn jiitu ñu topp ci déet fu waay xam mbëkk ca réew maa ngi ni fu waay xam mbëkk léegi la fu waay xam mbëkk li alxuraan waxoon nañu ko ñun ñi di ko séentoo bis penc ba fekk fii la alxuraan waxoon nañu ko fu waay xam mbëkk léegi fenn fu ne waaye fa yan boppam waaw surtout nag surtout nag ñi nga xam ni tey ñooy patronat yi patronat yi fi ne ñu ngi waaj a dof buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul économie bi nara a daanu alal ji nar a perte liñ nar a ñàkk nelawatuñu président yi moom waxaale wu ma leen ñoom waaw président yi moom waxaale wu ma leen président yi mu waxal wu leen nit yalla yi ñoom it daanaka tëddatuñ nelaw ñom li leen tital du alal ji du économie bi waye lu leen tital moy bakkani doom adama yi te ñu li ci yalla nam ñom loolu leen tital bakkani doom adama yi te ñu li ci yalla nam rabbi subhanahu wa ta'ala loolu leen tital moy leen tee nelaw mhm, moo leen tee nelaw moo ko barki démb ci eh, ndaje bële leen Cheikh Muntaqa ayadda ala wa nasara na ko yàlla sàmm te wéral ko ma ne leen bu ngeen gisee lépp lum dogal man ma ànd ci d'accord ci cent pour cent waxewu ma ko bakkan lu tax mooy xam-xam bi da koo mate réew mii di Sénégal wallahi xaw ma ku fi yewoo ku dul ni Cheikh Mountakha mën na laa jàngal nangami at lim xam du jeex yàllaa ko nattu xëy na waxam rek waaye wallahi Sénégal gi xaw ma fi kenn koo xam ne borom xam-xam boo fi tudd loolu ni Seex Muntaxa man na koo jàngal ay at xam du jeex fu xam-xam nekkoon ngacc na ko doog a ñëw toog fu xam-xam nekkoon laa wax même borom xam-xam yi dajale sax ñoom ñëpp moo leen raw yàlla xam na ko wallahi alxasim ñoom ñëpp moo leen raw ku yaakaar ni euh, ni muy waxee nii nga yaakaar ni euh, nit kuy daanu jël di wax. la ilaha dafa jang ba jang fu dara nikku da jang ba jang fu du def dara diko tatune dara dara deug la nak amna hal amna hal digum ak seigne touba a ah, lolou mom wali sax dañu am hal seen dig ak seen borom waye wallahi senegal xawmako ko fi raw xawmako de man xawmako mhm. benen bi ci dess moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam hadith bo xamni abi umama moko netti neena sallallahu alaihi wasallam neena won bidah ci hajjatul wida hajatul wida sallallahu alaihi wasallam dañ won woon laa wa sallu khamsakum wa sumu sa'rakum wa addoo sakata amwalikum wa atihu umaraakum tadkhulu jannata rabbikum sallallahu alaihi wasallam daf ni rawu tirmis ragal len yalla moy jitu moy premier père ragal len yalla te ngeen di julli seen waxtu yu di wor seen wéru koor di génne asaka bu ngeen amee alal du ko mat mu ni ginnaaw loolu nag na ngeen topp seeni kilifa seeni kilifa luñ dogal na ngeen ci ànd wa atihoo umra umra akum wa atihoo umra akum mun loolu de bu ngeen ko defee tadduxula jannata rabbikum bu yowmal xiyaamee yàlla dugal leen àjjana bu yowmal yàlla dugal leen àjjana addis bi yonanti baax alquran la firi suñ borom nee na atti on laa wa atti on rasula wa ulul amri minkum léegi wa ulul amri minkum rek fi mbir mi nekk topp leen ndigal yàlla yi topp leen ndigali yonant bi waaye topp leen ndigali seen kilifa yi léegi nag ñu ne waaw ulu amri minkum mooy kan ndax minkum la yàlla wax ki bokk ci yéen ki bokk ci yéen ki bokk ci yéen a ah, sénégalais yi ñi ko jiitele ñi ko jiite ay sénégalais lañ comme ñun kon buñ ñu nee nañ quarantaine suñ bopp wala boog euh, nañ def li ñuy tuddee euh, confinement mënuñu ci dara bu dee ci walu diine ji li cheikh muntaxa dogal mom kenn ku ñu day xam ci xam-xam la ko tek xam nga ñee sax mom mën nañu wax ne ñi ko tek rek ci sukkandiko ci li leen docteur yi wax ak yu mel waye ki mom li wax sukkandiko wu ko ci lu docteur di wax da ko sukkandiko ci hadis wala alquran fofu la ko lo istinbat lay def doog wax ni li la l'islam wax nañ def ni man nako sagale ñeneen rek ñu wax ko waye wallahi wax ni jang nako bu Mhm. kon nag yonent bi loolu la waxoon ragal leen yàlla tey julli seen julli juróom di woor seen weeru koor di joxe asaka bu ngeen amee lu ko mat te topp seen kilifa yi topp seen ndigali kilifa yi loolu la ñu jàngaloon te moom la yàlla yónni ci ñun te sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na wa maa yantuqu anil hawa in huwa illa du waxe bakkan du waxe bakkan kon nag li ñuy tuddee virus corona wala coronavirus lii la indi mooy addina bi commencé di dawante kenn ku nekk tëj say frontière ixlaax na maanaam dañoo ixlaax frontière yëpp benn frontière noonu lañ ixlaaxee aéroport yeeg port yeeg yëpp tëj ngeen leen lu tax yow ma yafirul marhu min aqihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imrin min um yow misin sahnun yuxnihi fofu lañ tollu kon nak li nga xam ne ci mëna musal mooy nañ wat ci yalla ndax alquran ni mu ko misale bu keroogee yow mal xiyaamit ci yalla dong la ñuy dellu solution doog a mën am bu fekkone ay bi alakhirah ko tax di wax it ci yalla kep la mëna delu solution doog a am kon nak adina bi nak buñ amé situation bu melni ci yàlla dong lañ mëna delu su ko mbir doog a mën a am mooy solution doog a mën am kon nag ñun ñëpp nañ ànd dellu ci yàlla subhanahu wa taala kon ñun ñëpp nañ ànd dellu ci yàlla subhanahu wa taala léegi nag xam naa kon sëriñ Muudu Mbay foofu la ñuy Muudu Mbay Caam foofu la ñuy taxawlu ci waxtaan wi jeexul ni ma ko waxee woon dama jàppoon ni xëy na waxtaan wi quatre heures fii ci Sénégal lay tàmbali man maa ngi préparé wu gannaaw bi ma doog a yëg ñu nag trois heures la te boobu fekk na daanaka trois heures jot ñu yemale ko foofu rek ah bu fekkee am na ñu bëgg a participer ay ca bismillah nga jox leen ñu participer may masawu nag mboolem diaspora bi gannaaw bi ma leen ñaana lee ba noppi. mang ngi leen di masawut di leen denk ñu gëna muñ metti na de kenn wéranti wuko metti na kenn wéranti wuko waye na mang leen di jenk ngeen gëna muñ te ngeen dimbalante delu ci alquran alquran waxon wa ta'awunu alal birri wat taqwa na ngeen di dimbalante ci ragal yalla képp ko xamni ni xam ngeen ko fofu ci rew mi ñu koo loxam jotul gannaaw xam ngeen ni rew mi umpante wu xamante ngeen xamante ngeen xam ngeen ñi man ak ñi tële ñi nag bis boo xamante ni bis bu mel ni ñëw na ñi man rek ñoo leen mën a yóbbaale ñi man rek maay faral di wax ni nit saa bu bëggee yàlla dimbale ko fu mu toll nay dimbalee rek ndax yàlla li ko lebal rek moom la lay fay li ko lebal rek moom la lay fay su defee kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen dimbalante ngir yàlla jàppalante ngir yàlla jàppalante ngir yonent bi jàppalante ngir sëñ Touba nga xam ne nii mooy solution wu jamono ndax bu leen fàtte ni mboolem kaayu critique yi mën mas jaar jamono yëpp solutionné na ko moom sëñ Touba bi ko fi fekk ñi ko fi wuutu it kenn ku ne def na lam man lépp gis ngeen leen kenn ku ne ci ñoom xew-xew bu xew ci réew mi njëkkati seen alal participer ca ngir roye ko sëñ Touba rek. ndax ci moom lañ ko xamee woon ci moom lañ ko gisee woon ba muy xettali France France duñ ay jullit waaye lu xool ci ñoom mooy ay jaami yàlla lañ rek ay jaami yàlla lañ kon même réew moomu ngeen nekk sax ku ngeen fi xam muy doom aadama rek te lompañ te nga am loo ko mën a dimbale rek dimbale ko ngir yàlla rek bul xool si moom dara bul xool fii la bokk ak faa bokk dimbale ko te yàlla tax rek rabbi sitiwa jàll te yàlla tax rek su ngeen ko defee day yalla mën nañu dimbalé ndax yalla subhanahu wa taala yonent bi mu yónni ci ñun neena irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay wajile yeureum leen ñi ngeen tane yalla yeureum leen kon buñ bëgge yalla yeureum ñu ñun ñepp nañ ànd yërëm ñu tane rek léegi tay yalla yeureum ñu teggi mbir mi kenn ku ne delu ci la nga nekkon man day non la ko gisee ma ngi leen di ñaanal nak yalla ar leen ba ngeen mucc ci tawat joju faaw yeen wa diaspora bi ndax man awma seen pay waxuma la dara bàyyi gi ngeen di bàyyi seeni soxla ak seeni itte seen lépp di déglu émission bi di ko jokk jolaate ku ko xam yëgal ko morom ja loola lama lama lama ca yaakaar ni moo tax ngeen di ko def mooy da ngeen maa yéene tuyaaba rek ndax ku ci dégg dara dara dara dara lu toll ni fepp sarra muy lu am njariñ nga jëfe ko yàlla bind ko ci sama téere jëf ci aw yiw ma jàpp ni lool rek beneen bi ci desin mooy mbirum daara ji ma yor dëgg xëy na boo doon de lim ci baaraam ñu jeex waaye nag taxul ma xeeb ko am na ci diaspora bi ñoo xam ne ci diggante ay góor ak jigéen wax dëgg yàlla bu daara Ihya mu Diin yeggee fenn fi ñooma maanaam dama bëgg wax ni benn coono bu metti bi bu ma ko ci yënuwul rek ñooma waaw ñooma dëgg la nag bariwuñ ñun mën lim ci baaraam lañu ñun mën lim ci baaraam lañu waaye ànd ak loolu lépp kat bu woon ak ñoom ah kon ma gën a sonn. kon ma gën a sonn kat waaye wax dëgg yàlla looloo tax na bu may ñaan rek boole leen ko yéen ñëpp rek waaye rawatina nag ñoo ñii rawatina ñoo ñii kon sant nañ leen gërëm nañ leen gërëm nañ leen yàlla xam na ne day ñeewante bi ma ci am ci yéen suñu borom rek ko xam wallahi yàlla xam na ko moo tax fu ma toll di dajale dong yi nga xam ne amaguñ ay bakkaar di jàng diggante wa kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniin ak lu melni ni matlabu shifa yi ak lenn ci ab lim ci yasin ak alquran ji di wacce kamil ngir rek yalla teggi li ba ngeen delluwaat ca la ngeen nekkon ngir mana yor seen njabot gi insha allah rabbi yalla nako yalla def yalla nako yalla def li dal yalla na fi yalla jele yalla na yalla xol bi ci war may rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu xol nu bëtum yermandem bi xol nu bëtum ndimbalam bi ci war may yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci war may alquran ak do yi koy jang waye ci war may sunu serigne ba nga xamni bu mbass mu melni ni masaana ñëw fekk ko jamono mu ni ko dénkum yanu ñun ñu am liberté mbass mu melni bu masaana ñëw moko nan naan yanu mom serigne touba mbass mi mosu fee jokkat na fi ñew de waye mom moñu ko daan gadlu rek ndax sun borom sabun bu bëgg wacce mbass nit yalla yi dana leen ko wan da am ci nit yalla ñoo xamne bu len ko yalla wane nak dañu xamne yalla tek mako te xeet yu mucc tek mako ci ci abdou wahab sahrani nettali nako ko yalla na daana tek daana wacc men mbass isiptu nee na bi ma gisee mbas mi xamni bakkan yu bari man na ci afatu man yalla tek mako yalla tek mako kon nak ñi ngi ñaan yalla ci war maam mom seigne touba mom nga xamni daana gis lu jëm ci xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu gaddu ko gaddu larja ah wolof njaay nee na ba xadd di xulookub taw kay seelu yëgut jamono boobee nag ginnaaw moom mooy sunu xadd ñu ngi ñaan yàlla mu xool ci jëmm joojile teggil ñu tawat ji te defal ñu ndimbalam suñu borom mën na ko wama salik àlalahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir su ko defee kon suñ muudu ñu yamale foofu waxtaan wi di wax suñu borom ni ko rabbana atina fi dunya hasana wa fi l hasana xasana wa xina azaba annar ربنا لا تشق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا آمنا الرسول بما أنزل إليك ربك آمنا الرسول بما أنزل إليك من ربك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما أملت على لسان من قبلنا ربنا ولا تؤمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تعمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين القرآن مل نونو فو سونغ rek مو bëgg لا نجوي واي كون نيغي نيان يالا سون suñu borom defal ñu ndimbal ak tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala